ndeysaan di leen jox seen uh, waay jërëjëf jërëjëf. waaw kii de mbokk la moo xam ne dafa dégg léegi benn laaj bu suñu benn mbokk uh, àggale foofu ci yéen. waaw. Uh, ma buggoon na xam naa indi ci tuuti leeral daal mooy ki leen laaj mbirum treizième mois. waaw. waaw xam nga léeg-léeg nag yéen laaj day orienté ba xëy na sax ngeen baal ma waaye mu dugal leen. Hmm. treizième mois bi mu wax bi. Hmm. maanaam ci fonction publique. Hmm. loolu ci wàllu payoor la. xeetu prime la boo xam ne xeetu buñaa la boo xam ne daal bu at mi jeexee mhm. dañuy fay nit weeru décembre am mhm. doolil ko ci beneen weer mu doon prime am mhm. loolu dafay fekk ni ci entreprise ak fonction publique dañ koy négocier ak euh, ak ak kilifa yi daal ndax bu fekkonte ne nga xam ne jotewul jotewul euh, dara ak weer wu ñuy séntu ak weer wu ñuy séntu daal waaye ci wàllu doxalin la weeru payoor ak weer wu ñuy séntu d'accord d'accord waaw ndax xam nga léeg-léeg weeru koor dina am entreprise yoo xam ne dañuy joxe ay avance sur salaire dëgg la kon ku jot avance am war a mën a wari ba. Mhm. waaw. am na solo loolu moom. leeral leeral bi am na solo jërëjëf ñu ngi lay jaajëfal baax a baax tey rafetlu digg boobu. Mhm. Mm-hmm. jërëjëf jërëjëf Oustaz ñu ngi koy jaajëfal bu baax tey rafetlu dugg bu am solo. loolu la fasalu ala zikri di tekki in kuntum laa taalamuuna kon nag sa dugg bi am na solo ak leeral bi kii mi ngi tudd uh, Yirim Mbay ma nga ca Thiès di ànd ñun jotaay bi. incha jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax tey rafetlu dugg bu am solo boobu uh, asalaamaaleykum. waaleykum uh, jërëjëf na ngeen def ak coono yi. waaw na ngeen def. zan waa Abdou Salam Guèye Dalifor. Abdou Salam naka waa Dalifor. maa ngi lay ziar bu baax di ziar oustaz. alhamdulilah. keroog dégg naa oustaz Alioune Mbow mu na ma ne ko ku bokk ci équipe day xamante ñoom moo tax ma dem ba ci moom mu xamante ak moom. ndeysaan. présenté ko mu ne waaw kay waa ñee baax. ndeysaan loolu rafet na lool. waaw maa ngi ziar bu baax di laaj daal benn aaya bu nekk ci Iqra. Mhm. kala enen nimtan layat ha hmm. mbaw istahna neɗɗarel ko ruja arata ɗesi jan ha ndeysan ɗum laago gon oustas dikkani mum ci daal jërëjëf manchallah ñëpp daal léegi tey mu ñëw ci inchallah hmm, hmm. ñu ngi koy jaajëfal baax te rafet lu duggam bu am solo boobu mbokk mi ngi tudd Abdoul Aziz faal ma nga fële ca Bambey professeur portuga portugais la di ànd ñun jotaay bi jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal sëñ Abdoul Aziz jërëjëf mbokk maa ngi noonu kon oustaz dem ca Iqra kallaa inna al insaana la yatqaa arraaw staxnaa inna ilaa rabbika rujaa waaw waaw sunu borom hmm. bi muy jàngal alayhi salaatu wasalaam hmm. dafa am bind yum ko teel a jox hmm. ginnaaw alam insaana maa lam yaalam kallaa inna al insaana la yatqaa nit nag daa gaaw a beew bul bokk mukk ci gaaw a beew yow arraaw staxnaa nit ñaare fi koy bew di nekk mooy mu am lu moromam amul. Mhm. an tax na. Mhm. ñaare lu nit am rek mbàkke mhm. te morom ji amu ko rek mu bëgg ko woon ne am naa ko te amoo ko. mu ne yonent bew bul bul dugg foofu. inna ilaa rabbika rujaa. ndeysaan. lu waay man di am. di am buy dem du ko yóbbu. daan ko. araayta les yanha abdul isa salla ndax seen koñ amul koo xam ne kii ko fay jaamu yàlla ñu tere la waaw wallahu taala alam wa shukran ci laaj moom solo wallaay ndeysaan am na solo oustaz jërëjëf ci dugg bu am solo boobu ñu koy jaajëfal baax te rafet lu duggam bu am solo boobu rakka bu nekk jàng naa ci juróom ñaari yaasina ginnaaw faatiha yee ne na ci istiqaaru rabbana ba mu tëddee Mm-hmm. mbokk mi dafa bëgg bokk ci jotaay bii asalaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam bisimilah bisimilah. waaw dama bëggoon mu ñëw ba ci saa di lantalaalul bi rek ba noonu. Mm-hmm. d' accord. jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax tey rafet lu duggam bu am solo. mbokk mi ngi tudd Adja Ndiaye ma nga fële ca hôpitalu Fann fa ñuy denc deret ya di ànd ak jotaay bi. di rafet lu duggam boo am solo boobu di ko nuyu di nuyu itam waa hôpital ba yëpp tey rafet lu seenu dugg ñoom it. Mhm. Eh, mbokk mi kon mi ngi noonu ca aaya jala dem lan tanaalul birra eh, hatta tunfiqu mimma tuhibbun surat Ali Imran lay doon aaya 92 eh, wa ma tunfiqu min shay'in fa inna Allah bi alim. dëgg la de. Mhm. sunu waram nee na. Mm. ku munta joxe loo bëgg mhm. baax nit balaa baax mhm. day mën a joxe lu mu bëgg mhm. ndax joxe lu sàppi mbàkke yomb na joxe lu xew yomb na joxe loo doyal yomb na xam nga lu jafe joxe loo bëgg ndeysaan lan tanaalul birra xataa tunfiqu mimma tuhibbun waaw loolu loolu suñu boroom wax hmm. moo tax këram laay wàcce jenn waaye daf ko toog ñetti fan këram daanaka di jooy ba mu yàgg mu door a trouvé lim gën a bëgg ci àllam ji mu ñëw ne yonent bi laaj ji daf ma daan loon waaye trouvé naa ko mu ne ko hmm. waaw mu ne ko sama sama tool bi nekk ci wetu jàkk ji te ñu a doon ànd ma ak yow hmm. jox naa ko jox naa ko yàlla jox naa la ko yonent bi ne ko wal ma say bokk bokk ñu ma leen diw bi jox na tool bi yàlla mhm. ba yàlla jox na ma ko jox naa leen ko mhm. ñoom ñëpp ñu ànd gërëm ko ndeysaan loolu la laaj ji tekki nit daal li feeg munta joxe lu mu bëgg baaxagul mm, dëgg la wa shukran jërëjëf Oustaz loolu am na solo ñu ngi koy jaajëfal baax a baax 88 628 98 98 ñu xaar keneen wax ca ngor ne mooy bu Seydina Xaliilulaahi am na fay at yu yàgg naa. 88 628 98 98. ku nekk mu ngay wër addina bi ci bépp. Mhm. Eh, ñu jaajëfal ko asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. bisimilah. sëñ Barka Sylla. waaw. maa ngi leen siyaar waaye monsieur Mor. yal na yàlla nangu siyaar. monsieur Mor jox damaa maa ngi si ma jox seen xamal di wax. waaw kay jaam. jaxate jaxate moo jaxate jaxate jaxate jaxate moo jaxate bonaas waaw kay jaxate jaxate alhamdulilah jaxate maa ngi baax lay fay baax a baax maa bëgg benn benn aaya benn arab bu ñëwoon ba ci mhm. mhm. aaya waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu di rafetlu duggam bu am solo boobu. soxna si mi ngi tudd Soxna Awa Mbacke doom la ci Cheikh Mouhamadoul Fadal Mbacke ma nga ca Touba di ànd ak ñun jotaay bi. ñu ngi koy nuyu baax baax Mbacke eh, sëñ Modou jërëjëf laajam baa ngi noonu nekk ci suratu Nisaa yi aaya 135. Mhm. yaa ayyuha alladina amanu kunu xawaamina bil qisti shuhadaa lillah walaw ala anfusikum awil walidayni wal aqrabin ba aaya ja jeex. wallaay ndeysaan. Mhm. yaa lisina amanu yéen ñi gëm. ndeysaan. yéen ñi gëm ndeysaan kunu xawwaamiina mhm. dañoo sàdda waaw gi mhm. na ngeen taxaw taxaw bu jub kocc mhm. di seede te yàlla tax li ngeen di sedd nag même su fekkoon ci sa kaw la wàcc def ko te yàlla tax te wax lay dëgg même su fekkoon ci sa papa wàcc wax ca dëgg même bu fekkoon ci sa yaay lay wàcc wax ci dëgg mm-hmm. même bu fekkoon ci sa mbokk lay wàcc wax ko dëgg mm-hmm. kon yàlla seede la bëgg ku koy def rek mm-hmm. na tax moom rek soo cay gaañoo wala su waajur di ca gaañu wala keneen di ca gaañu lu mu ca mën di am mhm. wala mu cay ñàkk ay avantage ak ñoom seen yooyu mhm. yow lay dëgg wax ko rek way su koron a baax ba xam naa mooy sa téyeer boobee nga doon jàmbat ca koor ga waaw la jotaatul benn information muy laaj nu mujjee sa bagage yi mujjoon na feeñ na ko wax ca kaw de daf ne woon bu ñu waree ba noppi dina dellu mhm. ah, woon la waaw woon na ma waaye daf ñu doon woon rek di def ay jeu jeu de mots waaw su ma wooyee ba noppi dex soxna Ami ne ko woo naa oustaz sax ba waxtaan nañ. Ah, ne déggoo nañ ma moom daal. su ma wooyee daan ni sox daan ni woo naa soxna Ami ba waxtaan nañ. moom juba dem gee ngi bëgg a ëpp kat. ma nga ak suñuy bagage daal ba léegi. Mhm. ma nga nag. Ah, accord. woo nañu ñun ñaar waaw kon waa wax leen ak waa ji. wax leen ak waa ji te te te waaw technopole dimbali nu ci. ndeysaan. waaw jël na suñu bagage yëpp bagage yu doo nga yàgg bagage yu dëkk ba. ndeysaan. woo na ma nag naan dégg naa da maa wax ci rajo ma ne ko waaw ca ko laa wax kay <laughs> ca kaw daal waxtu. ndeysaan. waaw jërëjëf kon El Hadj Modou mi noonu. El Hadj Modou ko mu ngi noonu ma nga mali daal. tubaarkàlla noonu nag bu ñu ko taba korité mu ñëw. ndeysaan indi bagage ndax kii sa soppe bu nekk France nee na man daal li mu sant man Thiam laa sant <laughs> ma ne ko ah mi ngoog de moom day loolu la def. loolu la de loolu di gas muy man kat dama ci metti suñu bàkk. ndeysaan. mooy bu ñu noddee balaa dara xew mu njëkk ci jàkk ci. ndeysaan ndeysaan. yoru kursu mag yëpp. waaw waaw. Mm-hmm. di indi ay gëm-gëm yoo xam ne. Mm-hmm. leela xam doy na. Mm-hmm. waaye daal noo koy xaar ba léegi. ndeysaan waaw. ku nu ci yokkal dara nu jël nag. ndeysaan waaw jërëjëf. noonu baax na juum na njuumte lu rëy waaye gaawal dab dabaatal ko weesuwut nga indi bagaas yi te tuub. asalaamaaleykum. maaleykum salaam wa rahmatulah. bisimilah bisimilah. la. waaw. yaakaar naa ne naka yitee Mamor jitee sant yàlla ñëpp dañu am jàmm baax a baax alhamdulilah. alhamdulilah. maanaam Fatou Mbaye ñëpp dañu am jàmm rek. jërëjëf jërëjëf. alhamdulilah alhamdulilah laa bëggoon ngeen ñëwal ma ji alhamdulilah. alhamdulilah takaasu d' accord. waaw incha allah d' accord. Mhm. jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal bu baax baax tey rafet lu duggam bu am solo. jaajëfal mbokk mi di Oustaz Jéeri Sarr ma nga ca Pikine euh, mu diiru Euh, Abu Musa al Ashari di ànd ñun jotaay bi. jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal bu baax tey rafet lu duggam bu am solo boobu. Mm-hmm. di ko ndokkeel bu baax a baax moom itam mbokk mi nee na suratu euh, al. Euh, atakaasur la ba nga ñëwal ko ci alhaakumu takaasur xatta surtumul maqaabir. waaw sunu borom nee na. Mm. yéen leen yitteel. Mm-hmm. du leen fi indi. Mm-hmm. li leen yitteel ci àdduna. Mm. du lu leen fi indi. ndeysaan li leen yitteel mooy li leen li leen fi defal. alhaakum atakaasur. nee na li leen yitteel mooy ëppalante di ëppalante di ëppalante xataa surtout maqaabir bu xëy dem ci xabru ya waaw nee na loolu moo ñu yitteel mm. waaye tabarkàlla nit ki sëñ Mbàkke koo gis nit ma nga naan am naa nangami kër ñu naan nangami oto ñu naan nangam ci xaalis ba xëy rek mhm. dem te di xabru yo dégg sigli ndigaale mhm. wallahu taala alam wa shukran ci laaj mbam solo boobu jërëjëf jërëjëf euh, mbokk muy ci duggam bu am solo boobu une jot na dese nañ fan fanweeri simili suñ kanam ñu wéy di leen xaar ci ñoom ay taalibeem ku ne ca ñoom kurus ga xeeñ na ak limaam ca laaj ko la ñuy àjji naa limaamu laay ku ma sa ñëw fa moom ak say daraja sew ndax dala naan ëf nga dini dootu xamaati àddina saw ndax dele naan ëf àddina limaamu laay ku ma sa ñëw fa moom mbokk mi daa bëgg a bokk ci yoon wi asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatulah sama sëriñ waaw maa lay ziar jërëjëf yàlla na nangu siyaar alhamdulilah Babacar Ndiaye la Baye Fall. Babacar Baye Fall na nga def. ñu sant bu baax mbaa yéen a ngi sant nañ. alhamdulilah. macha allah. ah man daa am rek lu ma bëggoon a tuuti sama xalaat ci mbokk taalibe yi woote ci émission yi. waaw. waaw comme su ñuy joxe laaj. ah. su ñuy joxe laaj yi. waaw. ñu ko ñuy am teggin par exemple laaj yenn façon question yi. waaw. ñuy bañ naan boo defee nangam. ñu naan ku def nangam lan mooy APM wala ku def nangam lu mu war a def. d'accord. waaw ndax man su am na yenn laaj yoo xam ne ni ñu koy joxee sama xool bi da ciy métti. d'accord. waaw ñu ñu ñuy dibal daal di woddu cadre yi di si bàyyi xel ci côté boobu. jëf par exemple suñuy laaj ñu naan tey ku ëmbal lan mooy APM. Mhm. waaw ñu bañ a utiliser mot boowee. Mhm. waaw ñu def ku nangam rek bañ naan boo nangamee. jërëjëf Babacar. ci dimbali jërë ngeen jëf. am na solo ñu ngi koy jaajëfal bu baax ci gendeeku bu am solo boobu mu indi ci jotaay bi. kii mi ngi tuddoo soxna Maada jaw ma nga ca Linjaan ca kaw Kaolack di ànd ak ñun jotaay bi. ñu jot na ba te ñaari simili 88 628 98 98 33 841 22 33. wallaay ndeysaan mbokk mi daa bëgg bokk asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah wa barakaatu. Oh, waaw. ñu ngi ziar di waaw koy jërëjëf jërëjëf. Mouhamadou Sow Rufisque. Mouhamad Sow nag waa Rufisque. ñu ngi Sow Sow. man laaj bi ma bëggoon jàllale. waaw bisimilah. nuyu ustaas bu baax a baax. jërëjëf mi ngi lay fay. dama doon laaj eh, ci julli. Mm-hmm. gannaaw euh, takbiratul ihram mhm. ak qiraatul fatiha mhm. ndax dafa am ñaan bu ñu fa war a dawal mhm. bu dee am na mooy ban wala bu fekkente ne am na it ku ko bàyyi luy àtte bi d'accord jërë jërëjëf sëñ Mouhamed Sow Rufisque lay wootee ñu ngi koy jaajëfal. mbokk mi di Chérif Tourate Haydara ma nga ci wakkaam di ànd ak ñun jotaay bi. ngi koy nuyu te di ko bége lool euh, euh, sa doom ji itam di ànd laayit Serifa euh, Haydara nee na moom it mi ngi ànd yow jotaay bi. macha allah bég nañ ci loolu tabarkàlla. jërëjëf oustaz sëñ Mouhamed Sow Rufisque nee na ndax nit ki bi mu kàbbaree kàbbaru armal laataa muy tàmbalee jàng alfaatiha dafa am ñaan gum fi war ñaan wala déet. waaw am na ñaan gu tudd duwaawul istiftaax mhm. duwaawul istiftaax mhm. mooy ñaan gi nga xam ne moom la ñuy ubbee julli gi mhm. su ko defee boo ne allahu akbar bala ngaa jàng faatiha yonte daf daan tek ba mu yàgg mu daal yëkkati njàng ma am ku ñu wax abu hurayrata ne ko yow mi yàlla yónni sa tekk ji lu ko waral mu ne ko dama naan allahuma baa'id bayni mhm. wa bayna xataayaaya mhm. kama baata bayna al mashriq wal maghrib mhm. ak ñaan la ko yonent wax ne daf naan yàlla maa ngi lay ñaan nga soreel sama bàkkaar yi sama digganteeg moom ni penkook sowu soree waaw kon ñaan googu loolu lañ fi doxale mu tudd du aw listifta nee na ku ko bàyyi ndax daa am àtte bu ko ciy war wala déedéet amul àtte bu la ciy war mhm. limaale wuñ ko ca farate mhm. ci sunna ya mhm. waaye nag ku ko fa defit mu ñu jël waaw wa shukran jërëjëf jërëjëf Assane jërëjëf waari fisk yëpp une jot na ba teg juróomi simili dese na ñaar fukki minutes ak juróom ngir àgg ci fanweeri waxtu kooku da doon ñëw waaye dëpp na ñu taaxeerlu ko delluwaat ci sikkar ba ma nga ne di ñëw asalaamaaleykum bisimilah. waaw suñu jërëjëf yal na yàlla nangu siyaar. waaw sama mbokk la daam Samb bu dëkk Tivaouane. waaw kay Samb Samb. trop trop trop. jërëjëf jërëjëf suñu daam jërëjëf Samb di alhamdulilah jërëjëf. macha allah Oustaz Alioune nag moom sama dama ko sopp rek. ndeysaan sopp nga ko baax waaye. tabaarkalla ndax daje nañu buleel. Mhm. ca jataayu Oustaz Dame Ndiaye. imaam Ahmad Dame dëgg la. tabarakallah ma ma bëggoon ko jox siiru foofu kar ba hmm. <laughs> waaye mu ko waxee daw hmm. <laughs> di di jox nuyoo Mansour Oustaz Mansour Samb sama rakk ñoo bokk ndey ak hmm. tabarakallah waaye ndokkale sunu kilifa sunu sëriñ boo xam ni fan dañu woon dañuy def anniversaire am mu Cheikh Seydou Mouhamed Moustapha ndeysaan xayartu di ko ndokkale bu baax xam ni Oustaz Alioune boo nga nee Tivaouane dëkk taalib sëñ si Ahmed Tidiane si Al Maktoum. Mhm. taalib sëñ Moustapha si responsable moral. sopp Alioune lool lool nag. Allah mhm. xam na ko. ndeysaan. ñu koy déggee ci waxtaan bi yëpp rek. jërëjëf. xam naa éducation boobu ñuy ubbee moom bu ñu sañoon xam lu muy wax lan la waaye neex na lool. ndeysaan. <laughs> tabarakallah. jërëjëf ñu daal ñu ngi ko ziare daal moom daal xam naa ne. jërëjëf ñu ngi lay ñu tam di rafetlu siyaar yi di bëgg ci nuyoo yu am solo yooyu te di ko ndokkeel. di ko ndokkeel di ndokkeel si Moustapha kon ci anniversaire boobu yàlla dundaat lu toll li mu dundoon ci teg cay at. jërëjëf ci mu ngi tudd Aliou Sagnane mi ngi ci Kër Lahine di ànd ak ñun jotaay bi. jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal moom it tey rafetlu ànd gi ci jotaay bi di xaar keneen ci ginnaawam. Mhm. asalaamaaleykum. waaleykum salaam. bisimilah. Euh, Sud FM ah? waaw seen rajo ngay woote bisimilah. Euh, ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar. jërëjëf ñu ngi lay fay nuyoo yal na yàlla nangu ziar. waaw maa ngi leen di oowee Kaolack. jërëjëf naka waa Kaolack. ñu ngi sant bu baax a baax. alhamdulilah. alhamdulilah. Mhm. dama doon am ñaari laaj yu ma bëggoon laaj. ñaari laaj bismillah. waa benn bi mooy bu fekkee ne da bëgg yokk sa ragal yàlla. Mhm. waaw loolu laa doon laaj oustaz lan moom mooy tax nit ki daal mu gën a ragal yàlla. d'accord. beneen laaj mhm. allah jërëjëf ñu koy jaajëfal baax tey rafet lu duggam bu am solo boobu. mbokk mu ngi tudd Dame Fall ma nga ca gaawaan. di mhm. ànd ak ñun jotaay bi. ndeysaan jërëjëf maa ngi koy jaajëfal tey rafet lu duggam bu am solo boobu mbokk yi indi woon na laaj mais laaj bi daa mel ne jotul woon a agsi ni mu ñu mhm. xaaraat ko mu ñëw mot li ko dese nañ ay minit mbokk mi dafa bëgg bokk ci jotaay bi asalaamaaleykum. maaleykum salaam. bisimilah bisimilah. Oustaz Mbacke. waaw. Aliya Kër Ndiaye Lo. naka waa Kër njaaylo Lo. ñu di leen ziar. nañ ci jàmm. ñu ngi ma sama Oustaz bu baax. mi ngi lay fay bu baax a baax Aliya. waaw Oustaz man dama gis ne fan yii ñu ngi waaj benn compétition ñu naan ay Coupe d'Afrique. Mhm. mais ñun après ñu ne dañ ciy dem xaw ma. waaw. léegi ñun bu ñu ci demee bu ñu teelee toog ñu naan ay sëriñ si dañ ñu yàqal ak ñii dañ ñu yàqal mais <laughs> ñun ñoo yàq suñu bopp parce que ñooy fal nit yoo dara duñ ko am hmm. ñun loolu war nañ cee taxaw seetlu ah, ah mais Aliou ñàkk kontaan ci njiit yi lu mu jotee ak bi xoolal suñu alal di ñuy pas pasar pasar di ko yàq benn groupe boo xam ne <laughs> benn famille benn famille bëgg kaa lekk ñu ñu ne fii di dund ci ndóol rek ñun ñi ak ah, bu toog bu ñu toppee nga foog ne ñun ñi coupe d'Afrique ba di ñun loolu la war a xoolaat loolu noonu. ndeysaan. tafaddal maskura. ndeysaan jërëjëf jërëjëf jërëjëf. ndeysaan mbokk mi ngi lu Talla ngoom mi ngi ci cees di ànd ak ñun jotaay bi. mu ngi koy jaajëfal bu baax a baax tey rafetlu duggam bu am solo boobu Oustaz noo gisee dugub Elia. waaw xam nga de. Mhm. lu jiitu li muy wax nii. Hmm. ñu ngi ñu doon éliminer. waaw. lu jiitu muy wax nii. waaw. ci après daañu ñu éliminer. waaw. kon taqale leen ñoom ñaar day xaw a mhm. jafe. te yeneen réew yi organisé it ñu ngi leen di éliminer. ñu ngi leen di éliminer ñu ngay éliminer Arabie Saoudite di ko dóor 8-0. <laughs> ñu ngay éliminer France di éliminer Brésil. <laughs> waaw waaw dégg na nag li wax ak. waaw chinois yi liggéey mën a organisé it ñu ngi leen di éliminer. waaw mu koy tubarkalla xam naa éliminer bi ci leneen la donte ndax euh, waxu kë waaw waxu xol la daal waaye <laughs> Aliou jërëjëf. ñu nga xoromoo ñu xaar keneen. keneen ngi nii ñu jël ko asalaamaaleykum. waaw ah, maaleykum salaam wa rahmatullah. waaw. Mamadou Diop AIBD. Mouhamed naka waa AIBD. ñoo fa ñu ngi leen di nuyu lu bëree alhamdulilah bisimilah. ñu ngi leen di siyaar bu baax a baax a baax te di leen sant pendant weeru koor gi yëpp. jërëjëf jërëjëf. di kontaan di leen di leen di topp fu nu di nekk. ndeysaan ndeysaan suñu xol sedd na ci yéen bu baax a baax a baax. jërëjëf jërëjëf. waaw rajo bi moom yëpp la sax. ndeysaan rajo bi tey Ndeye Khady Diop dama dégg bi ko. Euh, Bintu Cheikh Seck di tontu ba ne ko yow léegi xanaa deuxième docteur bi. wallaay wallaay wallaay. wallaay seen seen seen seen affaire yi rafet na. waaw da cee da cee da yàgg nag ci wàllu émission yi. da cee yàgg ndeysaan bi daay da cee yàgg lool. daanaka docteur la boo ñëwee sax mu wax la ni ngay naane ndox. <laughs> ndeysaan ndeysaan macha allah macha allah na leen yàlla yokk. yal na leen yàlla defal jàmm amiin amiin amiin yaa rabbal aalamiin amiin amiin sant nañu oustaz bu baax a baax a baax a baax a mm-hmm. baax. lépp moom la. ndeysaan nañu sant nañ ko sant nañu yàlla sant ko bu baax a baax a baax. jërëjëf yàlla jërëjëf jërëjëf am na solo kon ñu ngi koy jaajëfal baax tey rafet lu duggam bu am solo boobu. dugg bi rafet na ki mu ngi tudd Moustapha Guèye kat la ca Cap Rouge di ànd ak ñun jotaay bi. jërëjëf sëñ Moustapha ñu ngi koy nuyu une heure jot na ba tey fukki simili ak benn. Mhm. ñu xaar keneen ci ginnaawam. wallaay ndeysaan asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullahi barakaatu. bisimilah. Assane waaw Assane. na ñu ngi sant bu baax. waaw alhamdulilah Ndiir. di leen nuyu di jiital professeur Alioune Sall. jërëjëf mi ngi lay fay. wallaay dina jiital di leen nuyu. jërëjëf di leen hmm. weesu. alhamdulilah. di wax ni keroog bëggoon naa woote waaye émission bi teel a moo tax. Hmm, hmm. wallaay mooy mooy mi ngi ji ndeysaan. Mhm. mu leen ndokkeel bu baax. jërëjëf. di jaaree Saliou Sow al Bidaaya. Mhm. waaw di jaaree Pape Mor Diaw Japon. Mhm. Pape Diogo Sall. Suède. ndeysaan. Pape Dore Sylla Paris. Ngomane Ndiaye. Angleterre. ndeysaan di jaar aussi Fatou Alaaji Malick Sey. ak jigéen ñi baax ñëpp. ndeysaan. di jaare sama oustaz eh, Alioune Badara Xuma Kaolack ak waa Kaolack di jox nuyoo di leen jox nuyoo ci eh, oustaz Ndiaga Tall. Mhm. ndeysaan. professeur oustaz Ndiaga mu ngi leen di nuyu. Mhm. ndeysaan mbokk mi maa fa jot a taal ci oustaz Fadil. ndeysaan Fadil Tall ndeysaan. Mhm. nee na day jéem a dugg ba macha allah mais léegi-léeg day am jafe-jafe pour dugg. waaye nee na émission bi du ko raw. ndeysaan. waaye di ziare soxna Fatou Gueye. Mhm. moo jiite ndeyu daar yi fii ci concours national bu alxuraan bi. ndeysaan. jigéen ju am Pastef madame Cissé madame Oustaz Cissé. ndeysaan. vraiment di kontaan ci mbokk yëpp. ndeysaan. Eh, di wax rek eh, li fi xew fan yee. Mhm. Eh, ñetti fan ci ginnaaw. Mhm. muy rapport Human Rights Watch boobu di wax ci daara Euh, muy lu metti ci daara yi. Mhm. lu metti ñu ñoom daara. Mhm. Euh, waaye nag du fi jóg. Mhm. xam naa ni li alxuraan ñu ngutoo fan yi nga xam ni coupe du monde yi ñu ngi koy indi ak d'Afrique. Euh, tari alxuraan ñu gis ñu ci ñu xale yi def ci ndokkeel ndeysaan soxna Xadi Dramé gis nga ci wàllu mbind mi itam noonu. ah ñuy jóg daal di wax lu leen neex ci daara dëgg la euh, wax naa leen ko keroog nee naa leen dafa mel si yéen euh, loolu leen gën ci daara loolu ngeen di waaye loolu amul ndax itam boo seetloo ba fi daara jooju lakkee ci Médine euh, ña fa njëkk dem te kenn jiitoo ci gouvernement bi bañ demee dañ ni fekk nañ fa yàmba daara yoo xam ni ay nit lakk nañ ba fukki xale ak génn ci àdduna ñun fekk nañ ci yàmba man ah yàmba jo tooy na lool sax de tooy na lool ci lañ ci génne waaye nag xeex bi du fi jóg alxuraan nee nañu la tublawunna fi amwaalikum wa anfusikum wala tasma'unna min alladina utul kitaabu min qablikum wa min alladina ashraku adan kasira waaw wa in tasbiru wa tattaqu fa inna fa inna zalika min azmil umur buur subhanahu wa taala wax na noonu dinaa leen nattu ci seen alal defe naa ni fan yi alal moom alal <laughs> feeñ na fi lool ci wàllu wax jooju te ñaari wax yi ci yéeme mooy ñaari wax yi alal yi muy pétrole bi ak euh, mbiru alxuraan yëpp Angleterre la jóge ñaar yëpp nag Angleterre la jóge hmm. yàlla ne naa leen nattu ci seen i bakkan naa leen nattu ci seen alal nattu leen seeni bakkan waaye na leen nattu ngeen di dégg ci ñi nga xam ni ñooy ñu leen fi jiitu woon yoreen ma joxoon leen ay téere ak ñi xam ni ay bokkaalekat lañ di ay ceddo waaye asan kasira may ay lor yu metti ay lor yu bëree bëree bëri suñu borom xamal na nu ni wa in tasbiru bu ngeen muñee ba tat parce que ragal yàlla nee na loolu kat mooy cër yu mag ya gis nga daara du fi jóg vraiment nit ñi di ko jéem a xeex à chaque fois daara am benn euh, am ndam ndam lu rëy lu biir rek yëngatu yu tàmbali waaw yëngatu yu tàmbali ñu nga xam ne ñoo ñoo ñoo kii daara tax nañu leen euh, euh, looloo leen gënal maanaam lu leen dégg ci daara te baaxul moo leen gënal donte amul doon dañ koy sos daara dafay nekk beneen école nekk bi muy école française bi école française bi ñu structuré ko jox ko ay jàngalekat jox leen euh, école yu leen di formé jox leen moyens yëpp ñu école bi ci def nañ yow amoo droit def dara yow moom nañ la bàyyee sa bopp ñooñu nag ñu bàyyi seen bopp fexe nañ jëli leen ci mbedd mi def nañ lu nekk léegi nag moom ay tuumaa ci def disant que dañuy tëdd xale yi wax nga xale yi euh, fukki nit ak juróom benn génn nañ àdduna waaye man rapport bi nga xam ne ci lu lu teg ñetti at ñaari at ak ay weer ci école française bi lu mat mille neuf cent cas lu ëpp ëpp sax plus de mille neuf cent cas de ak ay ay viol yoo xam ne ñun mënuñ koo weddi mu ngi fi mu ngi déedéet léegi nag il faut ñu a taxal euh, ñooñ daara vraiment yonent bi waxoon nañu sallallahu alayhi wa sallam ni firil euh, ñu muñ mu ni asabru nisful iman nee na muñ mooy genn wàllu gëm yàlla kon ñun nañu gën a gëm yàlla ñu jullit nañu gën nekk benn waawa nañu gën a nañu nañu nañu gën a muñ te muñu lante yaa ayyuha allazina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun suñu borom nee na muñ leen muñu leen te leen takkoo leen nekk benn te nag ragal yàlla ngir seen affaire baax àdduna ak àllaaxira yàlla ñu yàlla doole dimbali yàlla yàlla yërëm yàlla gërëm yàlla na yàlla doole dimbale lislaam waaye daal alxuraan daal moom kanam la jëm kenn mënu ci dara géej la goo xam ni kenn mënu koo téye ak say yoxoo yal nañu yàlla boole dimbali. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatulahi wa barakaatu Al Hassane jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal ci dugam bu am solo boobu. di jaajëfal mbokk mi di imaam Ali Ba ma nga fële ci sàngal kaam di ànd ak ñun jotaay bi. jërëjëf imaam Ali ñu ngi koy nuyu tey rafetlu ànd gi ci jotaay bi te di ko ndokkeel imaam Assane jërëjëf ñu xaar keneen. kii dafa bëgg a bokk xaj Mbàkke ñu dalal ko asalaamaaleykum waaleykum salaam suñu Mbàkke waaw yaaram ma la sëñ Mayoro Madou Gat Mayoro Yàdd waaw aj Mayoro Yàdd na nga def waaw maa ngi ziar bisimilah bisimilah waaw maa ngi ziar Oustaz Aliou Sall waay jërëjëf mi ngi lay fay waaw waaw maa ngi ziar tamit waa waa tuddaw si musula waaw koy jërëjëf bisimilah yàlla waaw waaw maa ngi laajte benn aay waaw ci Mariam waaw ndeysaan qaala qaala inni abdullahi aataani alkitaaba wa hmm. jaalani nabiyan wallaay ndeysaan waaw wa jaalani mubaarakan aynama kuntu wa awsaani bi salaati wa zakaati maa dumtu xayyan wallaay ndeysaan maa dumtu xayyan waaw ay boobu laa laaj di nuyu waa waa Firdaws bu baax jërëjëf waaw jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax te rafetlu duggam bu am solo boobu. daal fa mbokk mi Alhaji Mamadou Sène ma nga fële ca Ndoomoor di ànd ak ñun jotaay bi. jërëjëf di rafetlu duggam bu am solo boobu te di ko ndokkeel laajam baa ngi noonu ca suratu eh, Mariam di ko ca jaajëfal aaya 31 lay doon du ko sori. Mhm. Eh, ma nga tàmbulee ca eh, xaala inni abdullahi aataaniyal kitaaba. wa jacalani nabiya wa jacalani mubaarakan aynama kuntu wa awsaani bi salaati wa zakaati maa dumtu ci laaj ba solo boobu sunu borom moo ni jàngal foofu benn yonent bu wax Isa bnu Maryam keroog ba ko waajuram ba Maryama amee am ko leewu ko indi ci pénc ma doom ji na ko buñ la laajee bul tontu bàyyi ma ma tontu ba mu ñëwee ca pénc ma ñu laaj ko doom ja tontu tontu la mooy inni abdullah man jaamub yàlla la hmm. jox na ma téere def ma may ko barkeel hmm. fu ma man di nekk hmm. waaye daf ma digal nag ñaar bi salaati wa maa dumtu xayya li feeg maa ngi dund ma de nekk ñaar yu ibaada xidma ibaada gi mooy asala xidma gi mooy a wa shukran ci laaj bu solo boobu jërëjëf tontu lu am solo lii ñu ngi koy jaajëfal te di la jaajëfal jaajëfal mbokk moomu doon yërndu te dëpp di ko xaaraat ci 88 628 98 98 jahaltu bilo sirran sanobe ani uyobi wan kolol xate aati miftaaxul wilaayaati asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah bismillah man maa dugal sànq affaire bi dagg. waaw kay na ngeen def. jotoon naa dugal benn laaj mooy nan la nit mën a def ba ragal yàlla mu gën a yokk. d' accord d' accord. ban mu ndax mu gën a ragal yàlla. Hmm, incha allah. waaw beneen laaj bi. Hmm. moo doonoon koo euh, xam ne daal dafa bëgg am soxna bu bu am diine. Hmm. yan ñaan la mën a ñaan ak euh, nan la ci ustaas mën a jàppee tamit utal ñu soxna bu am diine. waaw. jërëjëf jërëjëf ñu ngi la ci jaajëfal baax tey jaajëfal mboolem ñi nga xam ne ñooy ànd ak ñun jotaay bi mbokk mi tudd Mbaye Aram ma nga fële ca Touba Toul di ànd ak ñun jotaay bi ñu ngi koy jaajëfal moom it oustaz mbokk maa ngi noonu nee na ki nga xam ne a am soxna su su am diine yan ñaan nga koy digal mu koy ñaan waaw tànn lay doon rek mm-hmm. te bu tànnee mm-hmm. mën naa am soxna su baax su am diine mm-hmm. kon tànn lay doon ginnaaw bi mu nekkee tànneef moom ndax ku bëgg soxna su baax da ngay baax ba pare soo baaxee ba pare boo tànnee ko am diine tabaarakallaahu yàlla mën laa defal nga am ko am diine ngeen bokk di jaamu yàlla. Mhm. wa shukran. tabaarakalla jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal baax te di ko ndokkeel. Eh, beneen bi ci des nee koo xam dafa bëgg a gën a am ak xiirtalu ci ragal yàlla ak mbaax eh, moom itam loo koy conseillé. waaw li ñu koy conseillé de moom ragal yàlla moom li ko jur ci nit. Mhm. mooy jëfe li mu lay digal rek. Mhm. jéem a bàyyi yim lay tere. ndeysaan ko def rek yaa ngi ci waru ragal yàlla. Mhm. léegi moo gën a defe loolu mu gën di yokk. wa mhm. shukran ci laaj Mbam Sala bi. jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal te di la jaajëfal bu baax di xaar keneen ci ginnaawam. kenn ngi nii daana. ñu dalal ko rek asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah Oustaz Mbacke. waaw. ñu ngi bu baax. jërëjëf Tamsir kan la. waaw kay kan. ñu bu baax a baax. jàmm rek kan. di ziar Oustaz bu baax a baax. jërëjëf mi ngi lay fay. wax dëgg yàlla kontaan na loolu waxtaan bi am na solo lool. macha allah alhamdulilah jërëjëf jërëjëf. xanaa dañ doon laaj benn bayitu suñu maam Sëriñ Tuubaa rek. waaw. waaw xuttu matal mus. waaw <laughs> baax na dagg na waaye jot naa ko mel ni ku koy jàppale bu ñëwee ñu ñëw ci incha allah. incha allah mbokk mi nga tudd keebaa Thiam mu nga fële ci kër musa euh, commune de Kër Samba Gueye di ànd ak ñun ngi koy nuyu baax di nuyu waa kër Moussa yëpp. tey mbekki ci ànd googoo jotaay bi mbokk mi nee na xut hummatal Mustafa an kulli mafsadatin eh, wal tarxamil eh, xalq yaa man jallahum yaa man jaddahum badaa ba bayit wa jeex daal oustaz moom lu bëgg nga ñëwal ko waaw moom da mooy ah, dafa wax ne hmm. lépp luy gàllankoor ca yoon wa mhm. nara nekkuk dégg guy jam xeetu yonent bi mhm. noo ngi la ñaan nga teggi leen dégg yooyee bañ mën a jaar ci yoon wi dem te dara du leen fel wa sukkuran ci laaj solo bi jërëjëf ci tontu lu amati solo loolu mbokk mi jërëjëf ineer jot na ba teg ñaar fukki simili ak ñett ab diiratee ñu tàggoo waaye balay boobu xaj na fi ñu dalal ko asalaamaaleykum waaleykum salaam bismillah waaw sëñ yàlla yàlla nangu ziar ñu ngi nuyu ustaas di ko ziar moom tam bu baax a baax. jërëjëf am na solo macha allah. alhamdulilah. di rafetlu it nga xam ne indi na ko ci wàllu accident yeeg njàngale mi ci joxe yooyu yëpp. macha hmm. allah ndeysaan. ñu ko rek yàlla mën nañoo dimbali daal. jërëjëf. waaw dama doon laajte nag ci euh, Baqara. Hmm. aaya deux euh, subhaanahu wa taala di wa idaa talaxtum min nisaa fa balax na ajalahunna ila aqihi daal soo ko bëggoon naa daal ak 234 tam bu ñu ci mënee laal ak tuuti rek ndax gis naa ni foofu daal hunna hunna yu bari na ci ma bëggoon bu baax am na solo Oustaz añ ciy ñëw léegi jërëjëf ñu ngi rafet lu duggam bu am solo boobu te eh, di ko ndokkeel kii mi ngi tudd Mokhtar Cissé ma nga ca Tiwaawan di ànd ak ñun jotaay bi jërëjëf ñaari aaya yaa nuroo benn baa ngi ci 231 ak 232 eh, borom bi di ca waxee naan wa ida ni saa fa na ballaqna ajalahunna famsikuhunna bi maxruufin aw sarrixuhunna bi maxruuf waaw waaw xam nga baqara dafa am partie boo xam ne bii mhm. borom baa ngi ko def ci wàllu sos social mhm. am boo xam ne ngi ko def ci wàllu économie. ndeysaan am boo ne mi ngi ko def ci wàllu environnement. Mm-hmm. ila axiri ila axiri. Mm-hmm. boo ñëwee ci deux cent trente et mm-hmm. sunu borom bi dafay jàngale ci wàllu fase lu ama am solo. loo xam ne mooy boo yoree jigéen ba toll ci ngeen di bëgg a bàyyente. bu ca gën a rafet moo ca gën. waaw bu ca gën a rafet rek. ndeysaan moo ca gën. su ñaawee nag. da ngay bëgg jotaat ci ndaw si te daf lay daf lay jafe. dëgg kon nag fexe ba mu ba rafetal ko mooy la gën. mu ne. Mm. wisa talaxtumu nisaa. Mm. bu ngeen wàccatee jabar. Mm. fa balax na ajalahunna ñu dem ba nga xam ne yaa ngi toll ci règle yu mujj yi. Mm-hmm. fa amsikuhunna bi maaruf ngëb leen gaaw. Mm-hmm. fa amsikuhunna bi maaruf mhm. ngëb leen ko gaaw te ngëb ko ci njekk mhm. ci aw mhm. wala boog su fekkee doyal nga sarrihoohunna tàqalikoo leen bi maaruf li nga fi dégg kon mooy ndekete fase tasub tasub sëy ndax wax ba noppi daan sarrihoohunna ma ngay door a tas mu ne wala tumsikuhunna diraara bu leen leen téye nag ngir bëgg leen a lor. Mhm. li taxte du ak bëgg a jalgoteeg bëgg a tooñ. waaw. Mhm. xam nga yor jigéen ba noppi ne ko mu lay ñaan baat nga ne ko du ma la wàcc. Mhm. bëgg koo xoñe ci kaw. ne bind pour ñaan. fase ndax la nga cay bañ. suñu borom ne bëggoon ko def mul mu ko def mukk. ndax bëgg a jalgate. wa man yaf'al daalika. ku ko ci def ci yéen. faqad zalama nafsa boppam la tooñ. te tooñu ma man tooñut ki mu ko defaay waaye boppam la. boppam la tooñ est-ce que. waaw est-ce que. wala tattaxizu aayaati laahi huzuwan. wallaay bàyyi leen foyee alxuraan ji. lu ñu la wax nga ne c'est-à-dire. waaw c'est leen ni ngeen di fasee ak ni ngeen di tàqaloo ko. Mhm. waskuru ni'matallahi aleykum. Mhm. te ngeen fàttaliku ne xéewalug jabar. Mhm. ngeen ne jabar xéewal dëgg la. waaw ndax koo xam ne kii doo bàyyam. jëndoo ko mhm. juróo ko mhm. léeg-léeg sax mu mag la mhm. nga yónni muy dem ngay loo muy togg bala neexee léeg-léeg nga xas léeg-léeg nga coow mu ñëw ne baal ma suñu borom ne loolu xéewal la de dëgg la dëgg la waaw dëgg la wa ma ansala aleykum min alkitaab yi li yàlla wàcc ci alxuraan pour defar diggante bi xéewal la de dëgg la dëgg la wal xikma li yàlla wàcc ci wàllu wàllu pédagogie bi ngeen di nekk ci kër gi xéewal la de dëgg la waaw mhm. ya'izukum bi yàlla nga leen di waar ci alxuraan ji mhm. wattaqullaha waalamu anna allaha bi kulli shay'in alim te ngeen xam ne yàlla nee na mhm. lu xew ci sëy bi yëg naa ko ndeysaan <laughs> monsieur Koran ci laaj bu am solo boobu. jërëjëf ci tontu lu am solo lu oustaz amatina solo te itam leer na ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax ñaari minute moo te ñu yëkkati jotaay bi àgg ci fanweeri waxtu fanweeri mi ni tegu ci benn waxtu ñu xooli auditeur bi ci yoon wi bu ñëwee ñu dalal ko te tàggoo. daa mel ni am na ko nekk nii de. ñu jël ko kon mooy auditeur bu mujj bi asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah wa barakatuh. bisimilah El Hadj Pam Ndiogu. El Hadj Mbacke. jërëjëf yal na yàlla nangu siyaar. kan na moo mel leen. alhamdulilah. ah li daloon bi euh, moo ñu dal euh, keroog alxames passé. ndeysaan. ligne bi amoon na euh, xaw na am xam wala ndaw wala jàll waa jàll jàll yi. <laughs> ndeysaan. moo tax mënuñu woon a dugg. macha allah baax na. waaye ñu ngi nuyu oustaz nuyoo bi gën a sell si nuyoo yi. jërëjëf jërëjëf. Ah, di ci teg suma goro yi. Hmm. Ah, di nuyu El Hadj Saliou Sow. mi ngi lay fay. di nuyu di nuyu moom bu baax a baax. mu ngi lay fay boobu it. Ah, di nuyu suñu président soppe Sud FM diaspora Pape Mor Diaw. jërëjëf mu jàllale leen yooyu yónnee ko ci membre yëpp ak euh, soppe yëpp daal. alhamdulilah. waaw ah, waaye du ñu fàtte bu ñu mën a bañ a lim Adja Ndeye Camara moom it mu jàllale ko ci jigéen ñi daal. jërëjëf. ñoom ñu ngi rafetlu seen taxawaay bu baax a baax. alhamdulilah. ah di nuyu tamit euh, suñu xarit euh, sa xarit DG Ousmane Gueye. waaw ndeysaan. ah maa ngi la doon woo keroog barkaati démb la waaye malheureusement jotuma la. ndeysaan dama loolu si la ne taawam bu góor bu moo moom la moo wàññeeku daal. taawam bu góor moom ci boppam. non bu magam magam bu góor. ah magam bu góor la doomam wàññeeku. waaw mooy taw mu ren mooy doon taaw daal waaye moom it yàlla def na moom it wàññeeku woon na bu yàgg daal. ndeysaan ginnaaw. ndeysaan. Ah, ñu koy wax Baba Gueye. Mm-hmm. nekkoon xale waaye yàlla def na aussi ku amoo ku baaxoon ko amoon diine ba fexoon na ba ay doomam nekkoon ay xale waaye fexe na ba doom yi wàcc nañ kaamil wàcc nañ kaamil alxuraan ndeysaan yàlla na ko yàlla yërëm ñu bëggoon dara ngeen dañu ñëpp defal ko ñaan mu suñu suñu soppe doon xale bu amoon diine daal ndeysaan ñu koy tox ñu ko wax Baba Gueye ma papaam na mi ngi tuddoon Modou Gueye mhm, jërëjëf loolu daal moo doon euh, solo tey dugub bi ma ne ñool naa ko dugub pour euh, mbokk jullit yëpp Ousmane euh, Oustaz tamit defal ko ñaan incha allah jërëjëf jërëjëf waaw ñu waa ñetti mbaar yi fa teewoon yëpp na suñu imaam yi ñoom Dame Kayre Daouda Diallo imaam Bala Sall imaam Ibou Diané imaam Jamil Kayre imaam Cheikh Kayre ñëpp daal. Hmm, ak euh, suñu xarit euh, Amadou Mbodj seen soppale moom tamit ak Babacar Ba. Hmm. ak ñoom monsieur le maire